mbokki internet suñu gox tv jërë ngeen jëf nuyu nañ leen bu baax a baax ziar leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen dellusiwaat ak yéen nag ci suñu série famille sénégalaise waaye nag balaa ñu waxtaan a yéen rek ñu nit di jaajëfal nag di loo xam ne gis nañ abonné yi di gis like yi di gis nag partage bi waaye nag jàpp leen rek mu gën a dëgër ndax loolu moom moo ñuy sawarloo bu baax a baax kon nag mu mel ne ki nga xam ne moom mooy sagar nag ginnaaw bu mu engagé woon ngir xeex ak ki xam ne nag moom mooy soxna Batour Batour nag daf ko wax ne ko rek tegal li nga xam ne moom mooy ceinture bi nag ñu def ko jigéen ak jigéen rek boo nangoo ba sagar eh, teg ko nag batoor daal di jël paaka ndax ku ne xam na ne nag batoor workat la waaye nag kenn du àll àll kenn gënu neex moom mi leen gis ñuy xeex ba pare nag bañ leen àtte teg si nag di karkaral ki nga ko yégee nag dañoo jàppoon ni sax sàcc dugg ci kër gi wala daa am ba tax na nag ñu daal di jug rek ñëw pour xool waaye nag bi ñu jugee nag pour ñëw xool lan moo xew ki nga xam ne nag moom mooy àll moo leen di baare ak di leen karkaral ndax bañ ñu daal ndax moom yéenewu boobu lu rek ñu daal di dóor soxna Bator bi mu bëgg a dee ci la nag sagar dóor soxna Bator ba daal di koy màtt ci nopp nag ci la Bator yuuxoo waa kër gi yëpp nag daal di génn ndax ku nekk xam na ne Batoor dafa ñàkk jom te it amul njëriñ waaye nag mu mel ne rek àll fi mu nekk nii moom dafa daal di rek takku ba dëgër te dawatu dara nag ci digganteem ak Batoor ndax moom moo jox sax nag ki nga xam ne moom mooy sagar idée bi nga xam ne moom la war a ki nga xam ne nag moom moy Batoor moo tax nag maar nee na man àll xàmmeetu ko ndax bu demee bay kompaloo sagar pour nag ñu xeex ak ki nga xam ne moom mooy Batoor man xamatuma si mbir mi dara waaye nag li ko sëñ aadi wax rek soxna Batoor guy guy daan la te guy guy daanu nag faaw mu def bruit ba tóor fi mu nekk nii loolu mooy lekk ma si cere ji waaye dinaa ci xëpp suuf fi mu nekk nii kër gi la bëgg a tas yàqu ko balaa ñibbi ngoone nag moom mi ngi kër maar daal di toog delloowul kër jëkkëram ndax moom sax bi sagar di xeex ak soxna ba tóor ko bi bi ñu xeexee bañ àttale bi bari nag ci lañ koy dogoyeg mu mel ne kër gi fi mu ne ñëpp yeewu nañ muy ki nga xam ne moom mooy kod ndax àll sax ngeen xam kodd nag def ko dara da ko waroon a dóor ba dindi li nga xam ne moom mooy nopp bi daal di ma koy jox kon nag mel ne àll li ko sagar def ki nga xam ne moom mooy soxna Batul sax nag daal dina koy xeeb waaye kodd yi nag xolam sedd na ci waaye maritu yi nag daanaka nag mën naa ne meru ci suñu aada nag li mu wax maar dëgg la mooy guy bu naree daan faaw mu bëri nag bruit te batóor looloo ko dal daanu gi mu nar a daanu moo tax mu bëgg a ruube waa kër gi yëpp balaa mu dem sol leen ci benn bedd kon nag daleen ñu topp rek ci suñu bi ngeen di abonné di like te bés notification yi ngeen xaar rek nag épisode bi incha allah te xam ne nag dina neex dina yëngu dara du yomb ñu xool nag fu batóor di mujj ak sagar jërë ngeen jëf